الأفواه ومنصل السفاه والدواء من أمر العباد بالدهاء ليدفع بأن البلاء ثم لا من ثم سمرت يبرى بلا بد وفاس بالقرت محمد طبيبنا الأكيم أسكى سلام ربنا الكريم والآل وسب سب الإله السلام عليكم mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñoo ngi ñaanal bu baax borom Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha xaadim rasoul mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi bu ngeen gisee sunu jotaay bii nu toog fii ci njaareem pàkk bu sell bi waaye ci biir kër sëriñ Afiya Mbakke Ahmadul Maxtaar imaam eh, ñu jotaayoo nag ak kilifaam gu baax gii nga xam ne moo jiite njabootuk sëriñ Afiya gépp di sëriñ Saalihu Mbakke xalifab sëriñ Afiya ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njaboot gi aju ci moom ak mbooleem yoon wi ñoo ngi koy ñaanal ñëpp saa borom yàlla na sotti jàmm fépp mbokk yi jotaay bi nag li ko waral mooy dañuy waajal bisub jàmbaar ju tedd ja muy sëriñ Afiya Mbakke imaam rakki cheikhul xadim ñu fàttali ñëpp nag bis bi ñuy woote mooy ndigal li sëriñ bi mujj a joxe te jox ko rakkam ju baax ja sëriñ Afiya Mbakke te sëriñ Moussa ko waxoon ko ca woy wa ne rakkam sëriñ Afiye la woo moom doxali Touba subak talaata Bamba Kumali bis boobu nag la waajal ci ndigal ñuy ñaanal bu baax sëriñ Saalihu sunu boroom defal ko fan wu gudd lool te mu ànd ak wér ren nag xam ngeen ne bis bi ci lay am téeméeri at muy ndigal li sëriñ bi mujj a joxe mu war a am ren téeméeri at ñu di ko defee fii ci kër sëriñ Afiye Mbakke ci njaareem jàkkarloo ak jumaa ji nga xam ni moom la ko magam ju baax ja waxoon ne ko aafiya mu ne mbakke mu ne ko jumaa jàngoog ak gàmm yi ren nag mu war a doon vingt quatre juillet doon àllarba bu àndeek dogalu borom bi di xewee fii ci kër sëriñ aafiya mbakke euh, su ko defee nag ni ñu koy doxalee rek mooy euh, dinañ jox Baye Birane Ndiaye dina woote ci mboolem turu taalibe yi jébbalu ci biir kër sëriñ aafiya mbakke dina woote ci seen tur euh, dinañu jox it Cheikh Mouhamadul Fadal Mbakke moom Cheikh Abdoul Akram moom sëñ Modou Farmat moom it mu woote ci mbooleem turu sëti sëriñ Afia yi nga xamante ne bii ñoo amal ay liggéey yu am solo te ànd ak liggéey bi seen maam ju tedd ji waaye bu ñu jógee ci moom nag daanu jox sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Abdoul Wadoud Mbakke moom itam nag dina woote ci turu comité d'organisation bi yépp waaye woo autorité administrative yi ni ko ko sëriñ bi sante bu ñu noppee nag kàddug sëriñ bi sëriñ Mohamed Mbakke la ñu koy jox moom la mooy woote ci tuuru sëriñ bi yëgal ko ñi mu ko war a yëgal ñëpp kon ñu bokk teewlu jotaay bi. deen leen siyaare di leen nu bokk itam muy bés bu tedd bi nga xam ne mën a jublu wax nañ ko léegi ci biir tàmbali waxtaan wi muy bésub sëriñ Afia imaam ku ne xam na bés bi mu toll. nun nag wàllu taalibe bi li nga xam ne mooy suñu wàllu sasoo ko mooy wàllu daara yi daara yi nga xam ne moom lañuy ñuy doxet la ñuy tàmbali di boo tàmbalee ci daara yi kaamil yi nga xam ne sëriñ bi bokkoon na ci ñi nga xam ne taxewoon na ci daara ji di ca teg sëriñ moor Mbaye Cissé daara sëriñ Mor Mbaye Cissé daara sëriñ Moustapha Guèye ca bopp sëriñ Idimane daara sëriñ Malick Dieng ka ca bopp di sëriñ Abdou Cheikh sëriñ Bass Dieng sëñ Mor Fall ñoom ma xam wàllu alxuraan gi dañ ci wéete ñoom saa bu bis mo saa taxaw bu ma àggee fi ñoom jox leen bis bi suñ tàmbalee fa la tàmbalee alxuraan ba kara bis bay agsi dana fekk sax ñu tàmbali ko lu jiitu bis waaye ñoom bu ma àggee dañ naan fekkoon nga nu ci ndax sëñ bi kat képp koo xam ne jóg nga jëm ci moom di ko taxawee ab bisam la ci jiitu dafa naa ne alxuraan mu ngi ci jiitu taalibe itam fu taalibe ma di nekk ci at ci réew ñu ngi lay woo di fàttali bis bi bokk ndax kenn fàttaliwu ko sax mboolem ñi nga xam aju nañ ci kër gi foo waay mën a nekk nanga xam ne bis bi mooy sa bis amuñu benn bis bu dul bis bi amuñu lenn lu ko gën a kawe ci ñun itam bis bi nga xam ne moom la ñuy woote di bisub sëñ Afia Mbàkke te ciy woo mbokki taalibe yëpp foofu sëñ Biraan daanele ci ka ci ñi nga xam ñoo yore daaree kaamil yi ñu teg ci ñi nga xam ni ñoo yore daayira yi te daayira yi fu mu fi mën a nekk ci njaareem rawatina bis bii kenn war leen cee jiitu kenn war leen cee man te képp koo xam ne nii yaa ngi liggéeyal sëriñ tubaa kii di rakkam jii nga xam ne sëñ Afia Mbaye ku ne xam na ni meloon sëñ Touba ak ne ko sëñ tubaa defoon ak ki mu doonoon si sëriñ bi ak fii mu ko joxoon di jumaay ji mu doon ko taxawee ak li nga xam ne moom la doon taxawee di gàmm yi mu mujj koo jox ndigal la ba moom la ñuy màggal loolu nag dafa war képp ku fi nekk te ne yi ñu wër jumaa ji nga xam ni am na daayira yu fi ne yu bari yoo xam ni yi ñu ngi màggal bi tegu xeeri jumaa ji ñi ñu ngi màggal bisu waajtaayu màggal tubaab gi niki sëñ Moustapha Mbacke mi ñuy waajal màggal tubaab bi ñoo ko jiite ak kuréelu Ramo Masiri bi nga xam sëñ El Hadj Ndiaye moo ko jiite ak kuréel bi nga xam ne ñooy teg tegu xeer wi di xidmatul xadim te sëñ dem maam Ndiaye jiite ko ak kuréel yi nga xam ne maam jaarale ñu ñoo fi nekk kuréel yi maam jaara te soxna dama Mbacke Fall lu muy jiite ko ak daayira maam Cheikh Fall yi fi nekk yëpp ak daayira yi nga xam ne ñoo wër mbooleem loo xam ne féete na njaareem fu fi waaye mën a nekk rek xamal ni bis bi sa bis la. Ah, ñoo ngi woote nag ci turu surtout sëriñ Xaafi yëpp te sëñ Abdul Ahad Mbacke mu sëñ Cheikh Oumy nekk ca bopp ba ñuy wax ci turam mboolem eh, ku kuy surtout sëriñ Xaafi eh, ku nekk ci réew mi ak ku nekk ci bitim réew ñu lay soññ ci liggéey bi nga xamante ne baaxoon nañ koo taxawoo ci anam goo xamante ne sëriñ bi am na ci mbégte lool. at mu jot mu am cant gu mu euh, sof ci sunu biiru liggéey ren jii nag ñuy soññee lépp lu ñu daan def ñu def lu ko fawxa ba euh, ñu man cee am ngërëmul sëriñ bi képp koo xamante ne nii yaa ngi dégg sunu kàddu ak foo ko mën a déggee na xam ne liggéey bi ñoo ngi la ciy xaar nañu daan ko defee nag ren jii mu gën a yokku gën a taw feexe te ñu xam ne fépp foo xamante ne liggéey bi àgg na fa ñun ñoo ko fa yeggale te li li liñ ko fa yeggale nag mooy pësteef ak pas-pas rek te ñu xam ne bis bii nag ren dafa amaat leneen lu ca faw fawxa mooy euh, ndigal li nga xamante ne sëriñ bi moom la mujj a joxe te jox ko sëriñ Xaafiya Mbàkke sunu yaakaar tey ak ëllëg euh, ren ji lay am téeméeri at euh, ku ci nekk nag war a mën a am pas-pas ak pësteef bu toll ne maanaam fépp foo xamante ne liggéey ba yeggoon na fa mu gën a kawe gën a taw feexe kon nañu xam ne mbir mi sunu mbir la nu ñu euh, képp koo xamante ne ni yaa ngi ci biir liggéey bi xam ne liggéey bi euh, yow rek yaa yaa ci nekk yow rek yaa ci war a nekk ku képp ku la ku ci nekk dala caa dala caa nekkal waaye lépp sa tawfeex rek ak sa ngëneel yàlla nañ ci daje ngërëmul sëriñ bi. Euh, suñuy kàddu nag ñu ko yëkkati di soññee ci seex yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Afia Mbacke la ko dalee ci kër sëriñ Mor Mor ñuy wax ci kàddu suñu jege ak mboolem yi ci aju ñëpp. ak ñu mbooleem ñu aju kër sëñ Afiya Mbàkke ñëpp rek ñu leen di soññ ci bis bi ndax bis bi amuñu lu moom bis bi sunu bis la moom lañuy màggal te ko ko màggal màgg mat naa màggal bis la boo xam ne nag fépp fu ab taalibe nekk rawatina seex yi nga xam ne ñoo ci kër sëñ Afiya war nañ cee taxaw jàpp ne la koy jëme kanam ñun ñoo koy jëme kanam ndax euh, damay faral di wax ne siyaafi moom nawet la boo xam ne bu tooy bu sax jiw bu baax lu ci waay amul rek maanaam ci saw fàggu yéen la waaye boo ko fàggoo noonu am ko ni ko waykat bi waxee rek man faata saron fi waxtil basaari fi ma tara u yaxsudu ala lahum nadama kon ñeen ñi xam ne dañoo bokk ci seex yi nga xam ne suñu tubaab dafa seexaloon suñu maam boole ñu suñu aafee bis bi nañ ci am pas-pas am ci positif am ci taxawaay boo xamante ne nii kenn ku nekk dafay jàpp ne la ko war a jëmale kanam ci yow la war a tàmbalee ci war a ci yow la war a yem ndax amuñu lu moom amuñu lu suñu aafee ginnaaw amuñu lu suñu yaa fi nag maanaam bis bi daal ci kaddu suñu njaga ñu ngi soññee fu ci waay man di nekk moo xam ci réew moo xam ci bitim réew nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax suñu bund ci Sëriñ Tuubaa moom sëñ aafiya la kon ñu ngi soññ bu baax a baax a baax fu ci waay man di nekk euh, teel a ñëw teel a ànd ci liggéey bi lépp sotti mi nga xam ne moom la yàlla jox jataay bi ñu ñaan mu yàgg ba àgg ci lool jiite ko moom njaboot gi ci biir jiite googu nag moo tax mu wax ne lu ñëpp bokk dañ koy yaatal ñëpp xam ne seen mbirum bopp la mu wax ne mi ngi ciy woo njabootu sëñ Mbàkke Moor te mooy sëriñ Moor Anta Sali gépp bàyyiwu ci kenn ka njëkk ca njaboot ga ak ki mujj feeñ ci njaboot gi mi ngi woo njabootu maama haram ma haram nag daanaka la sallallahu alayhi wasallam waxoon rek ne bu ñu agsee ci àddinaan nañu taxaw waaye ma haram itam moo toll foofu ci yoon wi sëriñ Saalihu nee na mi ngi ciy woo njabootu maama haram gépp ka ci njëkk ba ka ca mujj waaye mi ngi ciy woo itam njaboot yi àndoon ak Cheikh Afia Ahmadul Muxtaar moo xam cheikh yi la moo xam ñi mu bokkal Serigne Afia Ahmadul Muxtaar la bu dee ñi mu bokkal Serigne mën nañu wax ne njabootuk Serigne Modou Formata ba ci njabootu Serigne Moustapha moom Serigne Afia bàyyiwul kenn ci biir njaboot gi euh, di leen fàttali li nga xam ne euh, moom la ñu bokk di wax ne seen yëf la du yëfam dafa nekk fi seen kanam rek di leen saytul waaye li ñuy def lépp yéen lañ koy defal waaye mu ci woo yoonu murit yëpp itam nag bàyyiwul kenn ci yoonu murit bu dellusee nag ci biir kër Serigne Afia tàgge ju nekk am na jàppal diw ñenn nat ñi ñuy tudd ñu baal ñu ñuy yóbbaale ñi ci des ndax bu ñu tuddee Serigne Abdoul Baaxi moom Serigne Xaasim ñu tudd ci ni Serigne Xaasim toftalo ak Serigne Abdoul daa ñu tudd ci wàllu xilaafa gi daa ñu tudd Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Akram sëriñ Abdul Akaram moom sëriñ du Farmata sëriñ Cheikh mi ñu waroon tudd bu yàgg itam moom sëriñ Abdul Latif daañu ko tudd waaye bu ñu ko tuddee itam daañu tudd waa kër maam Cheikh Ibrahima muy sëñ Ibra di tudd waa kër sëriñ Abdourahman ba ci kër sëñ Moustapha ku ñu fàtte ci tudd itam nga xam ne sëriñ bi moom yow la bëggoon a njëkk a tudd fàttewul kenn ci yéen njabootu Cheikh Afia gépp mi ngi leen di woo mi ngi woo seex yi mi ngi woo dëkkandoo yi mi ngi woo bokki taalibe yëpp waaye nee na mi ngi woo ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxe benn pouvoir bi nga xam ne. ñoo amee jooyantiku àdduna. muy autorité administrative yi ci njiitul son excellence président ba Bassirou Diomaye fay di ca teg premier ministre am waaye di ca teg ministre bi dëkk Njaareem te yore wàllu urbanisme. ñu koy wax Balla Moussa Fafana di ci teg itam kenn ci ay directeur am ku ñu wax Makhtar Sène te mu bokkoo ca kër suñu maam Tamsir seen di suñu mbokk waaye di teg ci woote bi le maire Malick Fall muy maireu Njaareem waaye di fàttali suñu bokki bopp yi nga xam ne itam naka jekk fukki at yi ñu génn ci ginnaaw wala la ko jiitu ñu nag ñoom ñoo bokk dëkk bi ñoo àndoon liggéey bi muy le ministre Dame Diop ñu nekkoon ministre l'emploi waaye di ca woo itam directeur de CROUS Moustapha Guèye mi nga xam ne moom it ñoo bokk dëkk fii ci kër gu mag waaye di ci woo itam ministre Fat Diané moom it di doomu sëriñ bi waaye di ci woo directeur de l'emploi Pape Modou Fall waaye di ci woo itam directeur l'énergie donte am na ci ñu ñu wóotu muy Pape Sayer Diop mi ngi woo itam mën nañu wax ne doomam muy ku yaru tey ku sonn ci bis bi ndax sëriñ Abdul Ahad mi mu doxale diggam ak moom dana ma ci wax lu bari muy monsieur le gouverneur Ibrahima Fall. Euh, mi ngi ci woo itam mbokki boppam yi mu dëkkal ci dëkk bi te lépp di genn njaboot gi ku mel ni Cheikh Mahamadul Fadal moom sëriñ Basiru moom sëriñ Touba. waaye di ci woo itam mbokki Daaru Salaam yi nekk ci dëkk bi. waaye di ci woo bokki Darou Mouhty yi waaye di ci woo murit yëpp bàyyiwul kenn waaye ni mu leen di wooyee itam ni la wooyee bokki tiijaan yi bàyyiwul kenn muy waa kër kër Cerno euh, Kanji waaye di kër Alaaji Mbàkke Tànjang ndax waa kër Cerno Kanji waa kër maam Cerno Kanji ñoom ñoo wax ci seen làmmiñu bopp ne seen maam maam Cerno bu mosaa soxla sëriñ bi sëriñ Afiya Ahmadou Muxtaar la koy booleel fii ci moom lay jaar dem ci sëñ bi su dëppee fi lay jaar kon wér na ma itam Alaaji Mbàkke noonu la demoon kon Serigne Saliou nee na mi ngi leen di fàttali li ngeen bokk ak moom fàttewu ci kenn di fàttali itam suñ bokki bopp yi nga xam ne jege nañu lool muy njabootu Serigne Mor Afsa Lo waaye njabootu Mame Mbaye waaye njabootu seen taalube bopp seen bokki bopp te suñu as mi bàyyi ko fa muy njabootu waa Kër Baye Lay Gaye ci gàttal daal sëriñ bi wax na ne bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ku déggul saw na nga xam ne ki doon jéem a lim moo matalut waaye sëriñ bi daal bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñan mi ngi woo ñëpp. sëñ Saliou nag mi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xam ne mooy màggal gi ñuy defal sëñ Afia fii ci njaareem muy màggalum ndigal ñii fi jaar woote lépp ci ndigalam ci la ame ak ci ay kàddoom te itam mu ànd ko ak ñun ñëpp. muy sëti suñu yi ànd ko ak mboole mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Mor Anta Sali rawatina maam Maharam Mbacke rawatina lislaam ji rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci euh, bopp dëkk bi muy kilifay kilifay adduna yi ñuy administration bi rawatina ñi ñi bokkal dëkk bi muy gouverneur ak préfet ñi nga xam ne ñi ñi nga xam ne dañ daan ànd ak moom naka jekk ci bis bi amoon ci ay taxawaay nee eh, taxawaay yiñ ci yiñ ci amoon yëpp mi ngi leen di ñaan ñu dolli ko waaye di leen sant yit bu baax a baax ci jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf te ngi koy gis itam te mi ngi egsi na itam bis bi ngeen xam ne eh, ñi nga xam ne ñooy jàngkati alxuraan yi muy waa njaareem nañ ci daan taxawe nañ ci nañ ci gën a góorgóorlu bu baax daara yëpp bàyyiwut benn daara bu ñu tuddee daara yi sëñ Mor Mbaye Cissé tudd daara yi sëñ Moustapha Gueye mel na ne tudd nañ daara yëpp bu defee itam kilifa yi fi nekk ni ko sëñ Moustapha waxe Euh, nga xam ne muy sëñ kër sëñ mut dem ak kër sëñ mu Lamine Diop Dagana ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoom la bokkal dëkk bi muy muy mbokki mbokki mbokk suñ mbokki yi nga xam ne ñoo bokk diine ji muy mbokki tijaan yi muy waa waa kër sëñ Kanji ak waa kër waa kër sëñ Tànj ñoom ñëpp rek bàyyiwuñ kenn nee na itam mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal soxna Anta Ndiaye Mbacke muy maam Anta Ndiaye Mbacke muy waa Daaru la ko dale ci sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Ibra Ndar rawatina sëriñ Abou Mouhamad mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Modou Mamoun di koo xam ne wëlëreem la ba noppi itam di di di di mën naa wax ne di doomam ba noppi itam am taxawaay lool nee na ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax a baax ni ko sëriñ Moussa waxee itam ci sëti sëti sëriñ Afe yi nga xam ne am am nañ ci taxawaay liggéey bi nga xam ne moom leen daan moom la leen daan jox liggéey boobu mi ngi koy konti kenn ku ci ne rek la nga yoroon ci bis bi kenn mi mi ngi mi ngi ci sa loxo ba tey nee na bis bi ngeen xam ne seen bisu bopp la seen bisu maama bis la boo xam ne it bisu fajug aajo la lépp lu ci waay yéene te bëgg ko ci rek boo ko ñaanee suñu borom dana la ko defal incha allahu taala ñu ngi ñaanal suñu sëñ saaliwu nag mu yàgg ci suñu kanam ndax kilifa la goo xam ne gu neex a sagoo la gu neex tiitaroo la te itam njabootam la ku ñuy dimbale la ku ñuy ñaanal la kon yàlla fi yàgg loolu te wér ma ngi nuyu ñëpp suñu ñaan yàlla mel ni jàmm ban fekkee bis ba maa ngi woo nag njabootu suñu ab bi njaboot si ñaaf gi yëpp xam ne si ñaaf yor la rek wala bëgg nga si ñaaf dara rek woo naa la ñëpp laa woo rek waaw ñëpp laa woo ñu nuyu nag bu baax te siyaare si Mouhamadou Mountakha di ko sant bu baax te di ko ñaanal ndax ay teraangaam rafet li mu def ci noonu lépp gis nañu ko moo tax dañ ko wax fii loolu la bëgg képp laa bëgg a ndax bu ko déggee xam ne fàttewuñu ko ndax fàttewuñu saa yu gis ay teraangaam di sant baax di yëpp koo xam ni ki aju na ci kër gi rek da mën samay taalibe taalibe yëpp rek laa wax ñëpp ñëw rek ñu ñaanal si ñaafe ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla fekk koy déwén ni déwén te loolu rek moo koy may loolu kañ koy may de kana woo naa kenn ñëw bu kenn ne awma lu mu yóbbu wala awma lu ma waxoon la lii la nañ ñëw rek ñaan ñëw bokk si ñaan bi ñaan ñaan naa ko ñëpp بالإسة أما يصفون وسلاما على المرسلين والأمر لله رب العالمين